mooy alors que li ko base li ko fondé souvent du nekk dëgg. en réalité ñun en réalité ñun Sénégal dañoo tardé en réalité. sur le plan de la conservation et de la protection des droits de l'homme et de la liberté d'expression on est trop trop en retard. xam nga ñu en fait on conserve des dispositions yi xam ne sur le plan pénal xam nga ça date de te boobu ça se comprenait parce que Senghor voulait consolider son pouvoir. Mm-hmm. il fallait que mu vote na woon a jamono parce que il fallait que mu vote des dispositions répressives. Mm au moins pour pour son pouvoir. son c'est comme mais dañu dépassé loolu Sénégal y a beaucoup de dispositions législatives ou bien sur le plan pénal yooyu Sénégal dañ ko war a abroger. bu yàgg parce que en réalité je vous donne je un exemple man à mon avis ah c'est mon avis. Mm -hmm. par exemple appel à l'instruction nga wax benn affaire ñu ne def na appel à l'instruction on traite devant le juge article quatre-vingt autre place sous mandat de dépôt. Mhm. mais loolu dafa dafa war a dañ au Sénégal gis nga nit ñi kenn mënu leen génne te neexu leen. gis nga taxawal fii wootee naan Sénégal. jóg leen génne leen non non mais non non même si leur voix porte ñi aussi dofuñu nga xam ne duñu gis nga dëkk bi les gens ils réfléchissent nit ñi xam nañu fu seen intérêt nekk soo nee leen génn leen ñu xam ni kii li muy wax ay waxu janax la wala ay waxu kasaw kasaw la duñ la faale est-ce que vous comprenez man pour man ces infractions là c'est des infractions très liberticides te à mon avis te je le parfois aussi nous les politiciens aussi on a beaucoup de reproches à se faire. Mm-hmm. souvent gars dañuy nekk di di dénoncer di dénoncer mais s'il arrive au pouvoir c'est comme mm-hmm. demande je tout politicien qui arrive au pouvoir sa premier chantier mooy c'est-à-dire que mooy nga assainir notre code pénal mhm. parce que on un code pénal ba nga xam ne ça expose tout le monde hein kenn mucc si même le président Macky Sall fi nekk tey mhm. suba su nekkee euh, dans l'opposition wala mu dem sax toog këram jàpp ñaam il serait en danger mhm. est-ce que il serait de son voilà, intérêt c'est très liberticide on des dispositions pénales xam ne de dix tu peux à l'article cent c'est des xam ne très yooyu xewatul soo demee daal les grandes amatu fa amatu fa est c'est des dispositions qui exportent c'est-à-dire que yow man li may wax ne wala yow li yow da nga koy jàppee du dara mais procureur mën na ñëw engagé des poursuites contre yow yóbbu la su mandat de mhm. tëj la bu heure bu ko neexee génne la ñu jugé bàyyi la il a il t'a privé de ta liberté et puis da amul benn responsable